li indi mbas ndax moom biñ ko laajee moom yonent bi ne ko lan mooy indi mbas daf ne attaauuna rijzun arsala ala taifati min bani israila ala man kaana ablakum mu ne mbas daal li koy li koy wàcce mooy ñu dem ba nit ñi yàq jaww ji yàq ji nag moom ñaar la benn bi mooy li ñu tuddee pollution mooy nit ñi dundin wu bon wala ndiku wu bon mu ne loolu bokk na ci mu ne waaye nag wala mu nekk nag pexe pexe xam nga yàlla ki ne yàlla diful dara am na ñi nga xam ne àgg nañ ci dégg na sànq ku koy wax ci ñu baax ñu njëkk wax yow nga dem ba gis ne moo ne yàlla deful dara dëgg la yàlla deful dara waaye yow yàlla la amal docteur bi science bi nekk ci moom yàlla la fajul yàlla faj loolu nag liñ ci jublu mooy li mu wax ne yàlla dina jël pexe moomu mu doon posen mu jaar ci loxo loxoy bannu Israël bannu Israël nag bu ko tuddee waxul juif yi waaye daf ci tudd ñi nekkul ci diine islam bi yëpp yahudi leen rek ba ci nasaraan bi mooy lii am nag ngeen tuddee ko virus mu ne wala lan bàkkaar bu bari wala lan mu ne iñaanante wala jëmee bay soxarante bay iñaanante mu ne bu boobaa daal jamono ji ci boppam day yàqu su booba nag sunu borom dina wàcce mbas mbas nag ba ko laajee pexe yuñ ci jumtikoo dafa wax ne fa iza samihtum bihi bil ardi fala tad'u alayhi wa iza waqaqa bi ardi wa antum biha fala taxruju firaran minhu mu ne bu ngeen demee daal ba mbas wàcc ci ab dëkk mu ne bu la ngeen fa dem de bu ngeen dem de ngeen dem fam am nee na ngeen toog li ngeen doon wax ci ginnaaw resté lan yonent be leen bu njëkk a wax mu ne waaye bu leen ko déggee ci dëkk tamit mu ne bu leen dem mu ne it leen dégg na mbas a ngi ci dëkk nga jóge ca dëkk ba di daw di dem ngir ragal mbas ma ndax amaana boo demee mu mu mu mu topp la mu ne nag waaye mbas ci boppam jullit bu ci dee bu leen ko tiit de ndax jullit bu ci dee dangaa ngaa sax it da ngay ku dee ci mbas àjjana la jëm kon képp koo xam ne am nga mbokk wala xarit yàlla yóbbu ko ci mbas mi santal yàlla te santale ko sa borom bu mu la def sax tiis ataaxul na shahadatun di kullil muslimin mbas mu ne moom daal mbas dafay texeel bépp jullit